xaside yi rek fi ne xaside yi rek fi ne lu yi lu fi ne xaside yi ne nañ jàpp xaside yi jàpp xaside yi xool xaside yi xool xaside yi jëm ci moom loolu rek fi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi kenn ko ci ne ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di ñaan kii nga xamante ne mooy suñu wasila a sëñ di Muxtaar di ñaan yàlla guddal fanam te wéral ko te lépp lu mu naanal sëriñ Touba sama boroom yeggaleel ko mu doon nag liggéey boo xamante ne des koo war a tàmbali muy bisub xasida yaakaar ci sëñ Touba ak jëmmi Cheikh Ibrahima Fall barkeb xasida yi muy suñu kilifa goo xamante ne ku ku ku baax ci ñun la te taalibe rek ñor ko muy Cheikh Abdoul Ahad ibnu sëriñ Cheikh bi moom nag lañu ñu war a mën a jox kàddu gi war mu a tàmbalee waxtaan ak sëriñ bi ak lu waral bisub xaside yi wasalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. di leen siyaare te di leen baalu àq bu baax a baax taayu bis bi moom ab bis bi bisub xasida la bisub xasida moom murit yépp a ko bokk kenn moomu ko ku ci génn sa bopp rek yaa ci génn sa bopp waaye Sëñ Tuubaa génnewu la ca ndax bisub xasida lan wax ndax amuñ lu dul xasida yi fas ci yéene liggéeyal sëriñ bi loolu mooy sababus bis bi suñ ko jàppee ni waxtu sàngam lañ ko jàpp def ci lañu tàmbali njàngum kaamil mi ak njàngum xasida yi bari na ci daare alxuraan yoo xam ne dañuy sasoo ay lim ci ay kaamil bis bu set ñu di ko jàng kuréeli xasida yi tamit dañuy sasoo ay limi xasida bi seet xasida yu waaye mën a jàng ñu jàng ko ba ba ñuy àgg ca bis ba loolu mooy daan waajtaayu bis bi lépp nag dañ koy def ngir jox ko sëriñ bi addiye loolu lañuy waajal bis bi suñu àggee ca bis bi itam luñ fa mën a jàngaat ci alxuraan danañ ko def luñ fa mën a jàngaat ci xasida yi danañ ko def noonu lañuy xëy tàmbulee ko noonu ba sànn su ko defee eh, eh, njàngum durus mi ak njàngum yëkkati mi ak njàngum kenn kenn mi yëpp ay dox buñ demee ba tàkkusaan nag ci la ñuy waxtaan ci sëriñ bi waxtaan wi it kenn du ko waxtaane lenn lu dul sëñ Tuubaa rek ren thème bi dañ koo def ci ak murit saadix mooy doon waxtaan wi su su suñ ci waxtaanee ba timis ñu yebbi mbooloo mi ba déwénati li liñ ci dollin mooy di sant mbooleem kuréeli xasida yi ndax taxawaay biñ amee ci bis bi ci waajtaay wi e, wane nañ ne e, e, seen yëf la xam nañ ko te jàpp nañ ko ndax at mu ne liñ ciy jàng ci ay xasida ak liñ ciy jàng ci ay kaamil bari na lool ndax daaw rek euh, kaamil yi junni bi yegg na limu xaside yi tamit euh, jaalibatul maraaxi bi rek ñaari millions yi teg na lu bare bare yeneen xaside yi doog a ñëw kon loolu euh, mbooleem ñi yëngu ci xasida xam nañ ne lii seen yëfa ndax bisub sëñ Tuubaa bis bi it fii ak ñi ngi koy def lenn lu dëppoowut ak mbirum sëriñ bi du ci dugg loolu moom dañ koo jaayante ndaxte laneen laneen liñ ci dolli mooy xasida yi nga wax xasida yi moom dañoo fas yéene di ci liggéeyal sëñ Tuubaa ba ba ni faatu loolu moom dañ ko jaayante def ko sunub liggéey waaw ndax xasida yi eh, ku koy jàng dana la wommat ba yóbbu la ci sëriñ bi te boo àggee ci kanamu sëriñ bi doo rus képp ku takkoo moom dana la defar ba nga mel ni sëriñ bi bëgg ku ni mel kon leneen li li ciy jox dolli ko mooy sellal njàng mi te gën koo fonk rek loolu rek moo nu ci war li ci des lépp mu ci sëriñ bi loolu yi daal mooy waajtaayu bis bi ak ak bis bi bis bi ci ndigal rekk lay lay tënku bu boo xasee dem ci ki fi nekkal sëriñ bi ba mu joxe ca ndigal ndigal loolee am na ndigal juddu na ca su la neexee at mu ne bu ak seetee mën ngaa wéyal bis ba ndax am nga ca ndigal ba noppi waaye euh, defuñu noonu at mu ne danañ demaat ci sëriñ bi waxaat ko ne ko bis sàngam lañ ko bëggoon a jàpp di laaj ndigal mu yeesalaat ndigal loolu at mu ne danañ ko yeesalaat euh, bu ñu neexoon nag bañ ci amee ndigal benn yoon rek ñu continuer at mu ne. ñu doxal ndigal loola waaye at mu ne dañ koy yeesalaat saa bu sëñ bi waxoon ne tey jii na na bis bi dakkit bis bu dootut am sëñ tubaa lañ te it eh, ay taalibe sëñ tubaa lañ yuy diglu ndigal rek bis bi it eh, taxawaay bi mboolem sëti sëñ tubaa yi ñoo ko ànd ñëpp bari na ci ñoo xam ne doo ci déggu seeni tur doo leen ci gis waaye bis bi ñor na leen ñor goo xam ne waxtu wu nekk ñu ngi ñu ngi woote téléphone di laaj fu mu toll di di ci soññee bu baax a baax moo waral ba balañ koo jàppit ñi ci war a waxtaanal ñëpp kenn ku ci nekk danañ toog waxtaan ci ak moom door a dem ci ki fi nekkal sëriñ bi noonu lañ koy defee at mu ne bari na ci ñoo xamante ñi fu leen mën a fekk ci seeti sëriñ Tuubaa tamit danañ dagg seeni yitte daal di ñëw ànd ko ak noonu ñooñu am na ci ñoo xam ne mooy ñi ngeen di gis waaye am na ci ñoo xam nag dañoo am ngàntal ñëw ca waaye ñoo ñoom it ñoo ko ànd ndaxte eh, waxtu wu nekk dañuy jokkoo téléphone ci yëpp duñ umpante ci dara daal ndax xam nañ ne bis bi bisub sëriñ bi la te kenn ku ci nekkit la ngay wax mooy bis bii nii muy doxee rek na ni doxee lenn lu dëppawut ak sëñ bi bu mu ci dugg man it ma xamal leen ne leen fii ak maa ngi koy taxawe de lu dëppawut ak sëriñ bi du ci dugg loolu dañ koy jo jombale suñ digg ak sëriñ bi taalibe yi tamit taxawaay bii ñu ci am mu leer la sëñ rekk lañ fay dàq fas nañ yéene ku fa ñëwit yéeg fa sëriñ bi ndax bisub sëñ Tuubaa la ñoom taxawaay biñ ci am kawe na lool bi bis bi jubee daayira yu ci nekk da ngay da yëg ne ña ngay woote ay réunion ña ngay woote ay ndaje di wër di koy yëgle di ca waxtaan lépp ngir xam ne Eh, eh, eh, luñ séq la bokk ko te mënuñ koo séddoo kon ñoom itam seeni taxawaay rafet na ci bis bi lool lool lool waaye lépp it Sëriñ Tuubaa mi tax ñu am ci taxawaay yooyu sëriñ bi gis na lépp xam na li ci sunuy xol xam na suñ pas-pas xam na lépp kon da day dugg ci bàyyee gën bàyyee suñ bopp sëriñ bi rek te xam ne dañuy liggéeyal sëriñ bi rek te xam ne nuñ ci taxawee rek bu déwénee ñu gën caa taxawaat noona bés bi nag gaaw bii di ñëw la samedi le 9 avril lañ ko jàpp bu ñu xëyee huit ci suba la ñuy tàmbali liggéey bi ba ba ñu julli timis loolu yi daal mooy bés bi noonu la tëdd ñi nga xamante ni dañoo nekk eh, eh, ci bitti nga wax waaw ñoo ñoo ñooñu it bari na ci ñoo xam ne eh, bu ñu yëgee bés bi. danañ tàmbali seeni lim ñoom itam di jàng euh, bu buñ ca àggee ñoom dañuy woote téléphone wax ne jàng nañ lim sàngam ñoom ñoo ñëpp euh, ku ci am koo ci bëgg a euh, jokkool sëñ Abdou njaay maraaxe bi ngay jokkool boo ci jokkook moom lim lim boo ko wax dana ko bind. dama leen di wax ne ñaareel ba doxuñ ci ay lim ñun ñun doxuñ ci ay lim. Eh, di defal sëñ bi di ko wutalu ab lim sax doxuñ ci loolu ñi koy def dañ ciy feeñal yéene pour wax ne def nañ lim sàngam jàng nañ lim sàngam waaye eh, même bu bu buñ ko bindee it doonut lu ñuy wax ci rajo doonut lu ñuy wax ci tele dañ koy xam noonu rek mboolem ñi bokk séq yëf yi sax boo ci weesoo kenn ñaar néew na ku ci xam lim bi dëgg dëgg ñaata la buñ bu buñ ko xasee eh, kii kii ba wax ma ko. kenn ku ma cay waxal amut dama koy xam ne ndax lu ñuy jox sëñ bi addiya la doonu tinne dañuy wax ne nañ lim sàngam fii ba bis ba déedéet nuñ ko yëgee rek ni lañ koy jànge buñ demee ba bis ba daal ku woote na jàng naa lim sàngam danan ko xam ku ku ku neexit mën ngaa ba ña woote wax lim bi nga jàng ndax liñ ci jublu daal mooy def gi jox sëriñ bi addiya noonu nii noonu nii daal la <laughs> waaw ñoo ngi leen di gën a soññ ci biis bu baax euh, gaaw le 9 avril ñu ngi ciy woo ñëpp di ci sàkku seenub teewaay di ñaan ku ci teew nga nga dajee ci ak ngërëmal sëñ Tuubaa waaw euh, jaa ngeen jëf sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax lépp sëñ Tuubaa rekk la jërëjëf. mbokki julli di mbokki taalibe yi kenn ku ci ne ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di jël kàddu ginnaaw bi nga xamante ne sëriñ bi fi mu bëgg a waxe ak la mu bëgg a wax ci bisub xasida yi sama boroom manale na ko ba jàllale na ko ñu fas yéene it jëfe ci suñuy ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ bi muy bis bii nga xamante ne moom la ñu dëgmal muy bisub xasida ñu di ko jàpp muy juróom ñetteelu édition ñu koy defee fii ci guy Masaalikal Jinaan waa kuréel kennal sëriñ Touba kuréel jaalibatul maraaxib sëriñ Touba rek ci njiital Serigne Abdul Ahad ibnu Serigne si Abi fas yéene koo ànd ak mbokki taalibe yëpp rawatina mbokki boppam yi nga xamante ne ñooñee kenn ku ci ne njaboot nga ci sëriñ Touba ñuy suñuy wasila di suñu yaakaar di suñu lépp ci biir ak ci biti kon ñu ngi koy sant bu baax di sant mbooleem sëti sëñ yi sëriñ bi it lii nga xamante ne moo waral bis bi mënees na cee waxtaan loo xamante ne jàpp nañu ci ak yëg-yëg lañ ko defee ndax lépp lu nit di def te amu ci ak yëg-yëg walla bu koy def amu ca ndigal jàpp naa ne jarul sax mu di mu di mu jarul sax mu mu yegg ca loola te loola it mooy bis bi nga xamante ne mooy bisub xasida ci ndigalal sëriñ Abdul Ahad ibnu sëriñ Cheikh Abi daa am liggéey bi fu mu tàmbalee fa mu tàmbalee nag mat nay leeral ndax ab taalibe day sañ naa laaj ndigal waaye boo toogee ba ñu jox la ndigal daa gënati waaye ndigal loolee nag daa rote ci sëriñ Abdul Ahad nu sëriñ si Abi wàcc ci ci ñun taalibe yi nga xamante ne rawatina jànkatu xasida yi muy bisub xasida boo xamante ne moom la ñuy ma nii comme ni ma ko waxee ca njalbeen ga muy juróom-ñetteelu édition ñu koy defee ca guy Masaalikal Jinaan ci ndigalal sëñ Sidil Muxtaar liggéey boobee nag moom la ñuy dëgmalaat nii di ñaan li nga xamante ne bëgg nañ ko ca muy ngërëmal sëñ Touba sama borom defal ñu ko kon liggéey la boo xamante ne sañes naa wax fa mu tàmbalee ndax ci jamonoy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara la liggéey boobee tàmbali da ko ba mu ñëw. ak ñenn ci njabootu sëriñ bi nii dama bëgg ngeen tàmbali liggéeyub sëriñ Touba bi rawatina ci xaside yi loolee it ginnaaw ba mu ci waxtaan moom ba noppi mu xamal ko ni ko fan ngeen ko bëgg tàmbalee liggéey boobee mu ni ko bëgg nañ ko dooree ca ndakaaru mu ni ko ana ñoo ko bëgg àndal ci taalibe yi mu daal di tudd tudd sama tur tudd mbokkim taalibe yi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun ci xaside yi sëriñ bi it daal di woote ci turam daat may xamal ni ma liggéey boobee nga xamante ne sëriñ Abdul Ahad mi ngi ko mi ngi ko tàmbali ci ci ndigalul sëñ Touba ànd koo ki mbokki boppam yi dama bëgg ngeen fas yéene koo ànd ak taalibe yëpp bu ko defee lépp lu ngeen ci bëgg ak lépp lu ngeen ci yaakaar sama borom dana leen ko defal te mooy ngërëmal sëñ Touba loolee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi mu fi nekk di sëñ Touba wax na ma lii may dégg moo tax ndigal loolee la ñu fas yéene saa su ne yéene ci mbokki jullit yëpp ñéene ci mbokki taalibe yëpp waaye rawatina jànkatu xaside yi rawatina ñi nga xamante ne dañoo jël seen lépp bàyyi ko sëriñ bi moo xam ci côté wàll woo xamante ne fa la ñu nekk di fa liggéeyal sëñ Touba ndax sëriñ bi it waar wi ñu ko war a mën a liggéeyee yaatu na moo tax duñ ko dëxëñ rek ci ahlu xasida ndax tey jii tey képp koo xamante ne sa doole tey wala sa xam-xam yaa ngi koy joyal ci bis bi ngir bis bi jag rek. kon nag bis la boo xamante ne fu ci waay ma ne na fa fa tàbbee te xam ne ngërëm lii moom saa bu ñëwee ci yow saa bu ne cas ba dugg ci yow da nga jàpp ne àdduna sépp ko yëg fekk yow képp ko yëg waaye lay xam ne nag yow mii ngërëmal sëñ Tuubaa tàbbi na ci yow mooy sa jëf ak sa wax ak sa bëgg yàlla ak sa bëgg yonent bi ak topp diine ak yaakaar ko bàyyeeg sa bopp sëñ Tuubaa loolee it su àndeek wax ju wér ànd ak jëf ju takku su boobaa ñu xam ne yow mii day la nga doon wut ci sëriñ bi jàppandi na kon nag mu nekk liggéey boo xamante ne loolee lañ ca yaakaar te amee ca yëg-yëg boobu loolee it ñu ci woo mbokki taalibe yëpp bàyyiwuñu kenn koo xamante ne ab taalibe nga rawatina nag nga dib jullit sax fa falaa koy tàmbalee su ko defee nag wàcc ba ci taalibe murit yi taalibe sëñ Tuubaa yi nga xamante ne dañoo jël seen lépp jox ko sëñ Tuubaa bàyyeeg seen lépp sëñ Tuubaa te lu ñu am jox ko nit ñi lu nit ñi am ñu bàyyi kook ñoom mooy njabootu sëñ Tuubaa kon muy bis boo xamante ne ñu ngi leen di woo ci bis boobee waaye bis bi it daa am lu rëy lu mu ëmb mooy liñ la tegal ni la saaboo ca neppee am ko wuute nag loo xamante ne dañ la ko dikk te lii nag mooy lu ñu xam la ak lu ñu teg suñu bët la mu nekk nag bis boo xamante ne bu ñu xëyee des koy xëyee jànge ko al jàng alxuraan jàng yendoo ko jàng xasida waxtaan ci mbaaxu sëriñ bi soññee ci ñun ak ni ñu war a amee ak taalibe ak nu ñu ko war a téye ba la ñu bëgg bu ëllëgee ci kanamu sëñ Touba sëñ Touba defal ñu loolu te loolee génnul ngërëmal sëñ Touba kon loolu mooy mooy sababu bis bi nga xamante ne mooy juróom-ñetteelu édition ñu koy defee ci guy Masaalikal Jinaan ci ndigalal sëñ Siidil Moxtaar xam ne liggéey boobee kat du génnul sëriñ bi sëriñ bi ginnaaw ba mu ca joxee ndigal yit la ñu xam ne na mu ko waxee woon ca njalbeen ga ki ko fi nekkaloon muy Cheikh Mouhamadou Lamine noonee la tàbbewaat ci noppam ba mu wóor nañ ne xam nañ ne la ñuy wut faaw danañ ko am kon nag dëggal googee nga xamante ne dëggal na ko la xam ne ñun lépp lu ñuy wut moo xam ci ki fi nekkoon wuutu woon ko fi kookee ak kii fi ne benn lañu du ñu ñaar kon képp koo xamante ne dégg nga kàddu gi xam ne kat lii moom lu sëriñ bi yeesalaat la ne nañ ko jëfe na nga xamante ne noonee lañ ko jëfee noonee ngeen ci amee woon ndigal kon nag liggéey la boo xamante ne ñun mbokk taalibe yëpp nañ ko àndandoo waaye la ca gën a yéemeeti moo di ndax bis bii nga xamante ne mooy bisub xasida bi dafa dem ba jur këru xasaayit ndax këru xaside gi luy mat di waxtaane la luy mat di leeral la ndax daa nekk loo xamante ne daa bàyyi ko ci ndigal ki fi nekkal sëñ Tuubaa te muy sëriñ Siidil Muxtaar yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko te xam ne lii kat xam nañ ni loxoom lépp génn ci ndax lépp moo ko téyel boppam ndax liggéey bi kat ca njalbeen ga nga xamante ne defee nañ ko noona la ñu xam ne sëriñ bi nangu na ko ndax nangu gi mu ko nangu moo jur këru xasaay tey jii moo tax bañ ci amee ndigal ba loolee taxaw ñu tàmbali ko ba loolee fii ñu toll nii ba ñu teg xeeru njëkk wi sëriñ bi yabal sëriñ Fallu ibnu sëriñ Cheikh Abdul Xaadir ak njabooti boppam yëpp. ñu ñëw tege xeer woowe ba liggéey boobee ñu ngi ciy soññ mbokki taalibe yi di ci woo jullit yëpp te xam ne liggéey boobee ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ci ànd di ci liggéeyal sëñ tubaa ngir sàkku ci ngërëmal sëñ Touba rek saa bu ñu demee ba noppi ci loolu fu ñu sëriñ bi joxoñ ci loolee ñu daal di tàbbiwaat ca loola. waaye nag kër gi daa am lu rëy lu mu ëmb mooy boo xoolee plan bi ni mu tëddee noonu dañ caa def këru alxuraan ca biir. wëlbati def ca daaray alqur daaray xasida ca biir wëlbati def ca benn maktab ca biir wëlbati def ca benn juma ca biir wëlbati def ca ab résidence boo xamante ne njabootu sëñ ku fa ñëw ñu mën la faa dalal ak mbokki taalibe yi mu nekk nag loo xamante ne lay aju ca biir génn mbokki taalibe yi ndax lu fa am sëriñ bi it eh, digal nañu ne saasu ne lañ ca war a def nañ ko matal ba lañ ca bëgg mu am ko moo di lan moo di bëgg nañ gone yi nga xamante ne toll nañ ci juróom benni at ñuy ñuy ñaan ci loolu ñu jox ñu ko ba li ñu bëgg ci moom mu am ndax sëriñ biit muy sëñ Abdul Ahad noonee la ko bëggee ndax bëgg na gone gu ci nekk nañ ko bàyyi ak moom ba li mu bëgg ci moom mu am te loolee mooy njàngalum sëriñ Touba boo jàngee alquran ba yegg nga wëlbatiku jàng xasida wëlbatiku ñu jàngal la njàngum sëriñ bi. wëlbatiku xasida yi nga xamante ne lu mu néew néew néew dana man ñeen fukki xasida dana mooy mooy pàcc bu njëkk bi nga xamante ne jàpp nañ ne war nga ko mokkal mu nekk nag loo xamante ne lu am solo la ci liggéey sëñ Tuubaa yi waaye liñ ci gën a amal solo mooy njàngalem sëriñ bi ndax njàngalem sëriñ bi dana bari ñoo xamante ne dinañ jàngee feneen ci bitim réew am yeneen i diplôme yoo xamante ne bokkut ak yi ne fii te du tee bu ñu ñëwee dañuy am beneen melokaan wu bokkut ak loola. te loolee it bokk na ci li ko gën a ñor moo di jàngal la ba nga xam yar la ba nga ne nër ba saa boo génnee li say wayjur soxla ci yow di ko am kon loolee moom mooy waral barab boobu barab boobee nag tey jii la mu ca waxoon mooy waxam tey tey jii ba mu ne càpp ba mu jógee ci moom ba ba sëriñ bi tàbbi ci noppam su ne ko woon na yam fii tey tey lay yam kër gi waaye ndokk ba dani ko na nga ko yeggale ba naalaat leneen kon loolu dañ ciy sant sëñ Tuubaa bu baax a baax di ko ñaanal sama borom guddal fanam ci loolu mu nekk koo xamante ne kat kuy mat di jàppale la ndax koo xamante ne léppam sëriñ bi la biiram sëriñ bi la biteem sëriñ bi la te dara ñoru ko lu dul sëriñ bi te lu mu am jox sëriñ bi te lépp loo xamante ne yaakaar na ko génnul sëriñ bi kon ku ñuy jàpp war nañ koo jàppale bu baax ci liggéey bii nga xamante ne mi ngi ko naanal sëriñ Tuubaa ànd koog taalibe yépp waaye li ci gën a am solo mooy da caa jiital mbokk taalibe yi nga xamante ne ñooy jàngkatu xaside yi seeni ñaq la bëgg ñooñu ñëpp ñu tàbbi ci ba ñu xam ne liggéey bi kenn moomu ko sëriñ bi moo ko moom waaye jooyale na ko taalibe sëñ Tuubaa yi nga xamante ne ñoom jaamu yàlla rek moo leen ñor topp yàlla rek moo leen ñor dund sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ñor topp ndigalal sëñ Tuubaa moo leen ñor ba tax na liggéey boobee nee na da koy xal di ànd ak taalibe yi rek ba liggéey boobee noppi ba ñu jël caabi yi jébbal ko ku fi nekkal sëñ Tuubaa ba lim ci diggee rek ñu ànd ko moom kon nag muy liggéey boo xamante ne na ci ñëpp bàyyi xel bu bés baa ko yeesalaat ba ñëpp xam ne liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko ànd fépp fu taalibe nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi xam ne kat ndigal la loo xamante ne ki fi nekkal sëñ joxe na ko taw wax na ni nañ ko def kon loolee ñun ñëpp nañ ca àndandoo liggéey kër googee bu sottee ñu jébbal ko ko lam ci digal rek ñu ànd kook moom kon nag lii nga xamante ne moo sabab bisub xasida ba liggéey bi toll fii moo indi këru xasida te ñu xam ne it mboolem fu ñuy def bisub xasida ci biir réew mi ak ci bitim réew mi lenn rek lañ ci sëriñ bi gën a gën a gën a gën a gën a gën a nawee te te ñu te ñu amee ci ngërëmal sëñ Tuubaa mun te weesu ñuy jàppante te yërmanante tey dimbalante te lu nit am ñu bàyyi ko moom te loo am nga jox ñëpp loolee moo doon doxinu Cheikh Ibra Fall kon nag mu nekk loo xamante ne na ko taalibe yëpp déggee noonu te xam ne kat waar wu daanu ñu tàmbaliwaat weneen ndax ngërëmal sëñ Tuubaa rek la ñuy wut waaye ginnaaw bi ñu ko amee it ba noppi it nañ ko jël denc ko mel ne musuñu koo am te yaakaaraat leneen lu mu ñu jox ngir ñu liggéeyal ko ku mel ne Cheikh Ibra Fall ak ñeneen ñi nga xam magi sañ Tuubaa yi ca loolee la ñu ca loolee la ñu tënku woon ba am li ñu bëgg ci ngir ci sëñ kon nag liggéey la boo xamante ne ñu ngi ciy woo ndaw ndaw ñi di ci woo mag ñi di ci woo góor ñi di ci woo jigéen ñi te xam ne lii lépp ñun ñëpp ñoo ko xal di àndandoo ba mu sotti ñu jébbal ko ki fi nekkal sëñ Touba kon loolu moo doon kàddu yi nga xamante ne ñu tàmbalee ko ci liggéey bi nga xamante ne ñu koy dëgmal fii ci guy Masaalikal Jinaan ci le huit le muy huitième édition di juróom ñetteeli édition bu ñu war a def di ko defal sam mu tombe gaawu bu ñu xëyee comme nañ ko waxee woon na ñëpp ñëw ñu jàng alxuraan yi sellal ko te dëggal ko defe noonu xaside yi waxtaan ci sëriñ bi teewlu bés bi lu ñu noppee ñu am ca la ca sëriñ bi diggee woon muy ngërëmal sëñ Tuubaa kon loolu mooy kàddu yi nga xamante ne ñu ngi koy yeesalaat bu baax di sant it waa Murit TV bu baax a baax xam ne ñoom it euh, euh, Bichri TV xam ne liggéey bi ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa ñor na leen ñor goo xamante ne waaye day lay waral ne seenu tàmbali ba fii ñu nekk nii xam nañ ni sëriñ bi it gërëm na seenub liggéey ndax liggéeyal sëriñ bi nit mën na koo diggee ba pare te fekk ne sëriñ bi nanguwu ko waaye lay firndeel ne nangu na ren ba déwén saa boo saa boo jaayantee ne sëriñ bi ngay liggéeyal ca loola loolee di continuer ba fii ñu koy waxee nii kon loolee da ngay jàpp ne sëriñ bi nangu na seenub liggéey kon ñu ngi leen di ñaanal ci barkeb Mafatihul Bichri waaye rawatina nag jaalibatul maraaxib li ngeen bëgg yëpp ngeen am ko ci barkeb Ahmadul Xaddim barkeb xaside yi barkeb Cheikh Ibrahima Fall wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. xaside yi rek fi ne. xaside yi rek fi ne. lu dul xaside yi. lu dul xaside yi. dara néew fi. xaside yi rek fi ne. xaside yi rek fi ne. nañ jàpp xaside xool xaside yi. xool xaside yi. jëm ci moom. loolu la ñu suñ Tuubaa jox mbéy mi. loolu la ñu suñ Tuubaa jox mbéy